tey ñu ngi fii arène national fekk fii ay ndaanaan ay champion yoo xam ne ni ràññee nañ leen ci wàllum lutte simple ñuy laaj leen rek lan moo leen da ko seen tànk ci biir arène national champion bi nuyu naa la. waaw bëgg naa la di bëggee ñëpp di siyaar ñëpp di ñaanal ñëpp jàmm di nuyu waa bool bu baax di nuyu kastoor ga ma di nuyu képp kuy bëggee carrière di nuyu sama supporter yëpp waaw. ñu nuyu la fekk la fii arène national la moo war a tànk yi. dañ ñu fii rek waaw pour benn lutte bu ñu war a def benn le treize bi ñu jëm waaw loolu moo nu fi andi moo ñun bëri yëpp. tournoi ñu ko xaar ne dañuy def tournoi teg benn mise mbëri daal di ñëw bindu tey ñu gis mbëri ñu convoqué leen loolu moo waral changement boobu. waaw parce que sa bokkul ak yee parce que tournoi bi boo xool dix mbër la ñu wax dix mbër yi ku si nekk day jot avance dem préparé ji doog a ñëw kon du lu yomb loolu bokkul ak tournoi yee quoi waaw moo nu fi andi ñun ñëpp moo tax nga gis champion ñëw fii dix personnes rek lañ soxla. amul mise mais ku ne la jox avance nga leen tëdd moom. waaw am na mise euh, 6 million lañ tëgg am na mise 6 millions lañ tëgg mais ku ne da ngay jot avance dem préparé ji doog a ñëw. waaw di woo fans yëpp le treize na ñëpp teew da gis lu garaaw da gis làmb waaw di woo Castor bi yëpp ak bool bi yëpp bàyyiwuma kenn ak képp kuy bëggee carrière rek na préparé le treize incha allah da gis carrière bu bees tax incha allah. ok. Mansour wala Adama kon dañuy daa dem may seen ki nga xamante ne nii seen ay Touba Kouta ay ay ndaaraan yoo xamante ni boo leen jiixee ci biir lu simple daal leen fay fekk salaamaaleykum. ma ne def Mansour xaw xaw naa tuuti fii de <laughs> xaw naa fee gàtt de Touba Kouta la <laughs> bëgg naa la. man ne. noo def. maa ngi nii rek. la yi arène nationale. tey dañ fee ñëw ñu invité ñu ñëw fi tamit pour benn kalaaf lañ ko mën a tuddee bu ñuy waaj. xam nga ñu wax pour ñu ñëw fi moo ñu fi indi tey quoi. ñu ne CLAF wala tournoi lu simple ñu ne leen tegal mise waaye jox leen avance am na wala amul. waaw noonu lañ ko déggee de comme ni nga ko déggee rek mooy loolu noonu lañ si jotee quoi. tournoi bi ñu ne dix personnes lañ ci boole est-ce que la niñ la tàmbal xam nga wala mos ngeen a jàkkaarloo lu simple. waaw comme li ma wax léegi Boucar rek ni ko mbëri moom seen supporters yi ñoo ma yab wala ñoo ñu yab mais ñun ñëpp xamante nañ suñ biir. bu desee ñun mbëri rek ku nekk xam na sa moroom lu muy saf kon amateurs yi ak supporters yi ñoo siy wax rek mais ñun xamante nañ bu baax a baax a baax waaw xam naa ñu boole ñëpp xam nga di ñaan yàlla yàlla suturaam la ma jël ko comme ni ma doon jëlee yeneen tournoi yi seen kaw. koy waajalee. waaw waaj làmb la lii moom mënul génn làmb mënul génn sport xam nga ñoo ngi koy waaj contact physique xam nga mooy loolu daa ma gën a xam. xoj bu téere wala. bu ko laajee de sport la rek mais affaire yi moom. yaa ma gën a xam daal man moom li ma si wax du bari waaw yaa ma gën a xam <laughs> dina mel ni daal euh, nuñ koy waxtee sax mbaxalu lii non non no xeer xeer day xeer day ëpp waaw mbaxalu kaani <laughs> kon nar naa saf ñu xaw a tuddee tuuti <laughs> Toubacouta la salaamaaleykum maaleykum noo def maa ngi nii rek dama waroon tànk bi arène nationale tànk yi dañu dañu fooyoo de tegal ñu benn tournoi dix loolu moo waral tànk yi quoi est xam nga dix personnes yëpp. waaw ñoom xam nañ ñamante nañ ñun ñëpp suñu biir. Hmm. waaw. mosu la cee daan wala daan nga ci ñaara nit. dañoo daanante daal ñun ñëpp dañoo daanante. ku ne daan na sa morom daan na sa morom. ñu ne am ndax dañu jox ku ne avance nga tëddeeg moom nan ngeen ko waajalee. affaire ñu ngi koy waajal kon ni naan waajalee làmb yi rek ñun tàmm nañ compétition xam nga toujours ñu ngi terrain bi di bëre quoi loolu moo tax miinante nañ quoi te xam nañ li ñu war a andi jour booba incha allah. yi. nuyu ñëpp ñuy ñëpp bàyyi ma kenn surtout fu ma jógee waa Bargny di nuyu grand Laye Ndiaye ak chauffeur bu mag bi papa waaw. jaajëfal ko bu baax a baax euh, bro ngi lay nuyu di ma bro di sista la. sista ñu lay bëggee kon. <laughs> noo gisee tournoi bi. waaw tournoi bi comme ni nga gisee rek comme tournoi yi doon bëri rek dafa xam tuuti dafa xaw am tuuti rek foog naa ni gaa yi fi nekk yëpp bokk nañ ay géewi làmb ndax yeneen dajawaat waaw kon tey bu ñu jëlee dara nii cité 10. dafay gën a yomb rek bu na nekk soixante soixante quatre personnes tey ñu def dix kon dañuy sant yàlla bu baax a baax baax. loolu lay gën yomb préparation bi day gën a yomb wala jàppante bi day gën a neex. Ah, boo nekkee soixante quatre ñu defal la dix du gën a yomb te ba pare ñu tegal la loo xamante somme boo xamante ni somme somme soixante quatre personnes du nga ko doon waaw kon tey kon lu mën a demee kon moo tax ma la day gën a yomb parce que dix personnes lan fukk léegi boo xoolee génne nañ fukk génne nañ soixante cinquante cinquante six personnes. kon léegi bu ñu tegalee tournoi kon ñun ñi nga xam ne ñun ñun lañ ko tegal kon dañoo war a xar rey suñu bokkan quoi rey suñu bopp affaire yi neex ñu indi ay supporters indi lépp bis ba taaral ko ñu xam ni làmb ko daal doxaan ay jiw quoi. temps bi gàtt ndax mën nañ ne diiru dix jours ci kanam la waajal ba dina métti wala. waajal dina métti dina métti dina du métti man daal foog naa ni bari na si ñoo xamante ni ban tikkee seen gémbu ban ajee yàggul kon da ngay mottali waatuut rek dàbbali waa tuuti rek dem bëre. waaw supporters yi moom dinañ war a ñu génn bu baax a baax incha allah dañuy génn mobilisé wu ñëw ñu taxaw ci kaw ñu yëngal ci suuf bëre ku meer gañ daal di lancé waa tuuti rek ci mbëri simple yi mbëri ñoo mën defar làmb quoi wax na bëri simple ak bëri doo du benn ñu bëri ci la ak ci fayda te boo déggee ma wax loolu maanaam dóore bi amul njariñ parce que ngàdd ak dóor du benn te loolu day yàq la parce que boo ko dóoree mu fayu rek coow mën na am foofu. est-ce que des fois da di xaw guuxalante da ngeen koy bëgg a wane kut ci biir compétition non euh, du question ay maral ak lu mën a merante nan nan nan damyee damyee bi def fulla ak fayda bëre yaa ngi dégg dara bañ gis boobu ku ñoo xam ne loolu la yàlla dogal quoi. ban message ngay lancé mbër yi ndax loolu am na ci ay sanctions yoo xam ne CNG daal dina koy génne. waaw xam nga man benn tur man def na naw añ kii ñàkk naa sama làmm ma mujj ko bàyyi définitivement parce que daaw loolu sax taxu ma woon a jóg wante arbitre bi moom xam nga ñoom ñooy at ñoom xool ñooy xool li xam bëre bi jaar na yoon ñu teg si yoon arbitre bu nit dóoree ñu disqualifié ko ñu teg ko parce que làmb du bëre bëre du bëre simple la voilà. kàddu yooyu leer na. ma ñëw ci Fils de champion national. nuyu naa la. fay naa la. nga nekk. sant rek alhamdulilah. lan daa am benn tournoi bu ñu war a kii fii incha allah le treize incha allah. tournoi bi bu neex la ay ndaataango ñoo si daje ay morom ay xale. xam nga lu neex la te day neex sa incha allah. ñu dégg na dañ leen jox avance ku ne ngeen ñibbi am na. non avance man dégg rek laa am. <laughs> mais avance dina ñëw. non ah lu ma ci xam dégg rek laa ci am dégg rek. ñii booy leen ak dix lutteurs yoo xamante ni yàgg ngeen a mbëkkante ku ne xamante ngeen ngeen di waajalante nan ngeen koy waajee. non comme ni ñu leen waajee rek comme ni ñu doon waajee yeneen mbapat yi wala yeneen làmb yi rek noonu lañ koy waajee. looy wax adversaire yi booy la ñoom ñëpp nee na ngay wax adversaire non non yow benn nga nga am lan loolu amul lu ñu wax nañ ñëw fii daal def fulla ak fayda rek loolu kese la. Mhm. comme li sa adversaire li sa mbokku mbër wax léegi li nee na làmb ji nekkul làmb dóor lu simple la amul dóorante wala nga meroo ak sa moroom di ko ko ci làmb ji yow sa gis-gis la la waaw làmb simple la comme ni comme ni saa wax rek waaw làmb simple moom yaakaar naa yàgg nañ ko bëre ñun ñëpp xamante nañ suñu biir xam nga kilomètre gaañ daal loolu rek lañ mën a wax waaw waaw ñun yàlla yàlla may <laughs> Ousseyn bàyyi ma dama ma ma daagul dem ci général Malika xool Zé nan naka la koy waaje Ousseyn lan doo mbër da laaj dañ dem Ousseyn aw ma lu may laaj ndax nekkoo mbër bàyyi ma laaj mbër yi amit ami ko leen fa ba léegi ci compétition bi lañ nekk rek ñuy gis Thiaka Faye kenn ci lutte simple nuyu naa la maa ngi lay fay. fekk la arène waral tànk waaw balaa may wax dara nuyu la rek ak axlu lambu Sénégal yëpp ak say caméraman tànkay mooy benn tournois bu ndaw rek bu benn promoteur organisé pour le treize pour dix lutteurs convoqué woon ñu moom lañ ñëwoon wuyu si leen tey xamaguñu nag ni ñu demee parce que ñoo ngi si biir di riñe di organiser waaw. ñu ne dix lutteurs la woo maanaam ñu ci gën a di booy laj lu mu la def. waaw defuma dara parce que même buñ ma si boolewul xam naa suma bopp xam naa li ma def si lamb xam naa fi ma tollu si lamb ñëw ak bañ a ñëw yëpp ci première yi laa bokk mais lii suma yéene mooy comme bokk naa daal naa nekk si compétition bi incha allah buñ ca eggee si bés ba may ma ma gagné ndam bi. combat bi ñu ne la bu ñu ak ay 10 jours la waajal bi naka la. bu doon ngoon sax damay bëre man aw. pare pare naa <laughs> waaw. waaw ñaanal leen yàlla rek ñu wér kattan ak ko incha allah bés ba bu jotee ku ne ñëw ni nga war a ñëwee ñu bore ko mu neex que le meilleur gagne. yàlla na ma yàlla def meilleur nag. seen pièce bi suñu daanu ci soo nekkee le meilleur